2024 bés bi le jour ne ku jegi kay fi mu toll nii soppi nañu aw doxalin Mamadou Mbodj ak i gaayam taxawal nañu ab logiciel bu yees buy dimbali candidat yi bu ko defee nag doublon yi daañu ko mën a moytu yemu ca ni boobu les plateforme nag li ñu bëgg jamono ji moo di ñu libéré kii di Bassirou Diomaye Faye ak bépp prisonnier politique F24 muy wut saafara ci doublon yi loolee la yéene bii di 24 heures xëy xamle ci xëtam wu njëkk yéene kaay bi ne lu ñu mel dina dimbali candidat yi ngir ñu mën a mucc ci jafe-jafe yi ñu daan jànkonteel laataa bi beneen bi yéene 2024 kay li ñu bëgg jamono jii mooy élection yi libre te ànd ak leexaange lu jëm sax nag ci wotey njiitu réew mi moom Vox Populi ma ngay xamle ne ab mission bu CEDEAO yegg si na fii ci réew mi te it nag dina daje ak bépp parti wala acteur politique séq ak yow waxtaan ngir déggoo mën a am jamono joojee nag fekk les ko moom ma ngay dellu siwaat ci rabat d'arrêt bi nga xam ne avocat Ousmane Sonko déposé nañu ko ca cour suprême xibaar yi ci aju yéenekaay bi nag ne bu neex ba bokk na ci juge chambre administrative duñu ko siégé beneenub xibaar ñu naan procédure d'urgence mu fekk le témoin di ñu xamal ne ña ngi koy wëyal dal gi yi nga xam ne ay mbokkam yi mu bokkal benn parti rawatina ñi fare ci ku jéggi ñu ngi ko koy joor bés bu yàlla sàkk naam sax nag mi ngi ci ay inauguration ak infrastructure waaye nag ñoom jàpp nañu ne lii lépp ay argument la yër leen yëglekaay bi di wal Walf Quotidien yor yor dellu si ci li leexul mu di chiffre yi nga xam ne rek BIG ak ANSD joxe nañu ko ci lu soxol occupation bu zone des Niayes ak littoral bi Le Soleil feelu ko na njiitu njiitu réew mi jamono ji ab cartographie bu leex nañ ñi rek la cay sàkku ñu daal di ko ciy amal le quotidien sëgg tey ci budget bu 2021 bu cour des comptes yéenekaay bi xamle ne ma ngay épinglé ministre des finances et du budget ci ay njublang ak i njuuj njaaj yu ñu nemmeeku ci ab doxalinam beneenub doxalin bu lëndëm ci bëtu askan wi l'observateur xëy dikk ci amal ci ab enquête mu di scandale yi am ci chantier yi nga xam ne rek kenn mësu koo livré bokk na ci lycée bu Sandiara université Iba Der Thiam bu Thiès assainissement bu Médina canal ouest bu Rufisque Doudou Ndiaye yéenekaay bi di fësal yaa ma neex jàmm ci anam bi ñuy joxee marché yi ci diggante entrepreneur yi ak kilifa yu Sénégal ma jox leen ay xibaar yi jëm ci cocaïne bi marine nationale jàpp bërki biik ci suñuy waax enquête yëglekaay xam le ni am na kaa bu buñ ca waxul ñoom ñi nga xam ne rek teg nañu leen loxo bokk na ci ab sénégalais ab colombien ab doomu Nigéria ak doomu Guinée Bissau fukki doomi aadama ya nekkoon ca bato ba dañ leen jébbal commissaire Ndiare bu Okartis tàggat yaram ak réew mi sport muy adversaire bu Sénégal di Guinée boo moytuwulee nag dana pare ci compétition yi ci suñu lamb rëg-rëg B52 Zerko Diène Kairé Jackson Junior ak Sokh seeni nataal ne fang ci xëtu njëkk wi muy xam le ni combat yu nar a am solo ci weeru décembre bi loolee nag la ñu fisalee ñu jeexale yëglekaay yi ak la xew ci Médina askan wa nag ne la watu ñu ba yandoor ay defkatu ñaawtee fa ñoo fay buur ak bummi yëglekaay bii di turbine ne mbir yi kay dafa meloon ni film ab bandi bu doon tiré ci kaw policier akub civil ngir 4 millions